ci bi. ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante la. ok ay jongante. dañuy jongante man ak yow. bi saf-saf. yéen yomb yomb. mais mademoiselle dama bëgg bàyyi mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def. wala léegi da nga bàyyi ñooma ñaar nga jëli njaago bi jëla góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan bàyyi moo doon wax waxu jabar jabar waaw yow la may premier njëkkee bi xanaa non non pour man la boo déggee ba naan pataas. kenn du kin rumbax. rumbax ah, c'est pour les c'est pour capara càkkin capara càkkin capara pindalo capara càkkin gaay tii càkkin càkkin man càkkin càkkin <laughs> dégg nga pindam pindam ram càkkin càkkin patas qui débarque qui débarque ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah alors le petit-fils a dit tas ma tas rambe ki ndax et le grand-père a dit la ilaha illallah et il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi la dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tuccu tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkana bi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man lay jëm a suuf daamu sax saman ametu ametu John Seck non lii faaw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naa trop foo defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante saraax la nuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa xibaar bu rëy ba sunu lamb fësal ci xët wu njëkk wa diggante Matar Ba ak Alioune bu doon ab sëy dañu naan tas na ci diiru ñaar fukki ak juróom benn yi mu yor lamb ji Matar Ba xëy na ne ko Alioune delloo ma sama yëf nga dem sa yoon li ax lu bëggoon doon ko jooye ka waxtaanee ka ñaxtu lépp Matar Ba defal na leen ko mbooleem ku doon jooye ka saako jóge fi boo déggee bi xibaar sa xol ba xamle nag mooy li ni mel waaye ci la jëm ba jamono ji ñuy wax ak yéen Alioune Sarr mooy président laaj boppam mooy kan moo war remplacer Alioune loolee moo waral moom ministre bi mu jël téléphone am ci toll ci ñeenti nit am na ñeent ñu mu woo ngir fexe ñu remplacer Alioune waaye kañ ca mën a jàpp bokk na ci arbitre rax ca dolli na ñu war remplacer Alioune Sarr Ba sawarul ci ancien lutteur yi képp kuy ancien lutteur amoo sens ndax Matar Ba du mooyu na la benn ancien lutteur bi ñu xalaat ne mën na ca am sens moom mu ngi ci secteur privé bi journal war a jeex waaye le ministre Matar Ba du ko ca xaar Yaxya Jóob Yékini ne man heureusement ba loolu xaaruma ko fa woon le 17 novembre 2018 ma tàbboon dugal ma biir CNG dem naa demati waaye la ma doon wër yépp gisuma ko man Yaxya Jóob Yékini damaa mujjee lem samay bagage ba mu roo toog ca man Yaxya Jóob Yékini damaa mujjee toog dematuma la ma jàppoon ne noonu la CNG di doxaleeg la ma gis du benn te Alioune ak équipe am a ko laajee na sëkk bu na sëkk ka carrière am war a jeex 2021 te doyal a gut ci lamb ji mooy Bombardier moom la a dem ak defet li dal benn combat daal bu ma ko amoon ci 2021 bi bu ma ca noppee damay organiser sama jubilé te sama dernier combat boobee mbëri ma bokkal génération laa bëgg a bëreel ku ci mel ni Balla Gaye 2 Modou Lo Gris Bordeaux ba ci Eumeu Sène mbër yooyu daal laa bëgg laaleel kenn ci ñoom roog ko bàyyi ci coowal Alioune Sarr bi na dem ak du dem 50 Cent bu Mor Fadam moom génn na ba wax ci xalaatam la mu fa xamle mooy Alioune ak équipe mënatuñu nañu toog ñoom nii ñuy jàppi làmb ji jàpp gi ñu jàpp ne koy avancé échec dëgg la amul benn effort bu ñu teg ngir avancé làmb ji làmb ji may gis ni amul benn avancement buñ ci nemmeeku CNG dafa war a dem bàyyi làmb ji ñeneen bu dee li simple bi mbëree ko téye guddi yi sunu làmb ñëw na septième ex aequo Serigne Ndiaye 2 Kalmu ak Franc ñoom trois drapeaux ña gagné benn drapeau ci saison bi bokk na ci Ablaye Wilantooy Mamadou Moustapha Sall ñu gën koo xam ci fils de Batlen Mamadou Gaskel Diamé Blende ak Mamadou Seck El Hadj Thiaw Sow Ngane Seck ñu gën koo xam ci Ibou Senghor Pape Maroon ak Selemele ca grand absent ya bokk na ca Ngel Jonn général Malika Cheikh Tidiane Niang ak Mamari Ndiaye yile mbër lañ doon xaar ci rang bi te gisuñu leen jërë a perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante la. ok ay jongante. dañuy jongante man ak yow. man ak yow dama bëgg bàyyi mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg nga ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko ta dama koy def. wala léegi da nga bàyyi ñoom ñaata nga jëli njaago bi. jëla góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan bàyyi ma doon wax waxu jabar jabar waaw c'est bien yow la may premier njëkkee bi xanaa non non pour man bu déggee tëggkat ba naan pataas kenn ah, du kin rumbax rumbax c'est piñe piñe capara càkkin capara càkkin capara pindalo capara càkkin gaay tii càkkin càkkin man càkkin càkkin <laughs> dégg nga pindam pindam ram càkkin càkkin patas qui débarque qui débarque ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah mm-hmm. alors le petit-fils a dit tas na tas rambe ki ndax et le grand-père a dit la ilaha illallah et il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi la dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tucc tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkana bi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man la jëm suuf non lii moom faaw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naa trop bu ko defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante